لا تغيو سنة ولا نمله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يصل إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حظهما وهو العلي العزيز ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah La ilaha illallah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 Cheikh na Cheikh Saad bu nee na yàlla alhamdulillahi alladi qad fara أنهار ولم يلد ولم يكن خطأ يراسي الساق لنا penjara وبصير أم أسلب هو كريم يلا مقنا هو كريم يلا مقنا هو كريم

mooy ci sës ci yàlla moom yàlla keneen koy waa yàlla ko gën a gaaw waxoon na ko Muhammad nee na ko bu la sama jaam ñi laajee ana ma man yàlla nee leen maa ngi nii dinaa wuy woote ku ma woo wa iza sa'alaka ibadi inni qaribun soriwuma leen ngi ci seen wet ujibu da'wata da'ani iza da'ani buñ ma woowee man yàlla ma wuy leen mu gën a gaawe moo tax si ya saabu nee na huwa alqaribu yow yàlla wala kii fu moo gën a gaaw mooy aji ñeewantal ji moom yàlla wasamat mooy cappaatuli yàlla amul ndey amul baay amul maam amul nijaay amul famille buñ koy askanale amul xeet wuñ naan fii la yàlla bokk amul làkk wuñ naan yàlla làkk wi lay làkk lu dul mooy sunu borom sàkk xeet yeeg làkk yi xeet wu mën a doon ak làkk wañuy làkk lu mu xóot xóot man yalla xamna ko melentan bi gëna a tuuti wala sangalay wala fel man yalla ma gi xol yuur gëna mu placé wa ca bop ba xamna la muy xalaat waye ma ngay seen xol ba na muy dalé na muy tebe man yalla dara mu ko maa def leen ñu màggal yalla moy borom jamm ngay bay dee nga donnu ko bay day dee ni jaay dee nga donnu ko yàlla mi donante leen ba jeex su ne bu jeexee ma donnu lépp may donnu ñëpp kenn du ma donnu may waari suñu Bayi day dee nga donn ko nijaay dee nga donn ko yàlla mi donnante leen ba jeex su ngeen jeexee ma donn leen rek maa ngi lay ziar wallahi ñu ngi lay ziar bu

ya yaakaar sayyidina Muhammad fiko yalla tek mo gëna kawé ñep fiko yalla tek mo gëna mag ñep yalla du sàllaloo Muhammadu da ko taral ba boo jullee ci moom yàlla fay la donte da ngay gis tal bi yàlla bëgg la sajida jëla dinaat bala ñu koo xam ñu dem yamal yëngu-yëngu yi bëri na ku nekk naan may waaji waaye fii sama baay noon na jamonoy xarakaat la yëngu-yëngu rek ku xëy di yëngatu suba ba ngoon nga tëddaat tekk waaye fële tekk tekk tekk jamonoy sakanaat la amul yëngu-yëngu yàlla rek yëngu yàlla rek kay sañ a bàkkoo bu boobaa ki nu yaakaar seen si saddu nee na sama maam Muhammadun maa ngi siri alwalimaani Njaay yëpp yàlla Mamadu Muhammadun safina fi nasri wa alihi wa sahbihi wal وبعد إني لا بإذن الله من شر ما jëf si xata akul naha ilal mawaqira zabit iman بحق ذاتك وبالقرآن ولا تغير ربنا لجزتي إن ورقت رؤيا afini yàlla jàmmal ma fa afini yàlla jàmmalal samay doom fa afini yàlla jàmmalal samay taalibe ci fitna yi bàmmeel bàmmeel ak tàngoor ak xataay ba ak lëndamaay ba digal Cheikh Ibn Sa'd Nabi gaynde gi te nim gat na muy ñaane yàlla nga tooga toog si bis deru malaaka may nga xam ni yàlla moom mooy borom jaam ñi nga xam ni yàlla moom mooy borom jaam ñi nga tàggu kër ja jibali sa jooy ñu xam ni yàlla moom mooy borom jaam wuute gi nii ci ñaari kër yi kii yaa ngi tëdd ci lal bu nooy njege noo nooy sangoo balaan nooy waaye kër gi ci biir suuf si ngay tëdd suuf si ngay tëdd suuf si ngay ngege suuf si ngay sangoo bu tawee gàncax gi sax kaw te doo mën a jóg ñu xam ne yàlla mooy borom jàmm قد قتل صاحب سعد أبينا فآفني يا ربنا يا ربنا من الفتن والخبر لا يدمني نافع إلا بوجد ما ياه أوسع جوابا بسرور ربنا لدى سؤال الملكين يؤمنا وبس الخبر وفارج الكروب سيح نصيح بنينا يا فارج الحم وقافر الذنوب نصيح بنينا يا نور يا منور ظلامي نور ظلي بنور ذامي وفي الألاء بنور رحمة مبلغ القريب يا ذا النعمة حتى أكون في الجنان رافعا في المدن قبل كل رافعة ودود صحي بامير أجيت بامير ak jàkkalaari bàmmeel sunu yaram yi moo di seenu ñam wa duudu wa usudu turaabu min ardini fa kulla azab wóor seen bopp ya ca suuf ngir ci ci demuk sayyiduna Muhammad nabi baamam maa keroog dafa daw wuti teen ba jaña di ko dab mbam dugg ci bir teen ba ne keneen dootuma war gine gileemam gaa dafa xiifal bu ñu joxe lek mu du moy bu ñu joxe ndox mu du moy nag dootuma naan dootuma lek ba noonu la génne Muhammad amaaro xer bangaya bangaya bangaya bangaya, banaya banaya banaya banaya banaya banaya Yeah. Ah, sunu sang sunu wasila di Chérif Alwely Maana Ndiaye ah moo yegg si fa tabaarakallahu लंबिया sopp seex na seex saabu defal nii لم يزل مقدرا طلعتها لقد انكرنا الله صنعه إنما مثل صفات كلمات سكما مثلا نجوم الماء

الأمهات والأباء ما مدت قدرة من ارسل إلى بطلت قومها بك الأنبياء تتبع بك الرسل وتزول ومن آياتنا سيدنا محمد يا من يقزي عليك سيدنا محمد كتب عليكم سورة اسماء سدل فقرار أنت هي قيمة حصناء ومحيا كسمس منك منير حسنا ليلة قرار góor jigéen mag ak ndaw na ñëpp jóg taxaw ñu màggal juddu Seydina Muhammad eh, eh, eh, سيلك مولد الذي كان لدي سرور Alhamdulillah

diko jox ay garab cheikh talib yu jimbira neena samam cheikh na cheikh sadu jambat na cheikh na jimbira ay garab yo xamni bu ca boole mum ragal ya allah musiba am ndax su booba ku ko xol xol mu neexul yàqu ku ko wax ci ginnaawam baat yàqu ku jéem ci njabootam yàqu ya ya loolee sa cheikh na cheikh sadu moko jox cheikh ma jimbira xamne jox na ko lu reuy mu ko bu mu ñew ne ko yow sama talib bi cheikh ji mbir a ka ya yaa muridi bi taqwallah jëkk naa la ragal yàlla باي مولي يا ربنا إطعنا بلانا والله يا بهم يا إيمانا وحكم بثوري وصلاتي وطاهري أجسما بزكاتي بدأ من نوره نور البلاد محمد ما إدرار ولا محمد جبريل يا برامم maamam Mouhamadou Djimara nee na dawatu say albasir mujib wa sartu ja bu bàyyi naa yooyu yëpp sax Cheikh Mouhamadou Djimara wa antal waliyu yaa Cheikhil masaiqi Djimara Djimara Djimara eh, déggal doomam ja Cheikh Mamouri Djimara Djimara Mori baay Cheikh Mafoussa sang ba nee na ولا جنان ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض من الحكم bàyyi sama xama faadal sama moori ji ma moo jàngal sama baay léegi يسر بشيخ مامورين هنا وأنت وأنت الشيخ والمخلوق مقرن محمد جبرائيل يا ربي يا ربي يا ملك يوم الدين الله يا ملك الملك خير المبشر المؤمنين شيخ مامورين هنا أفكر به وصلى الله على سيدنا مسيسد ولك ولك الحمد ويا من لك الحمد لك الحمد من الخلق وسويه ونقصتي لما كان في ميمي ومائي وأمري لك الحمد يدعو মোহাম্মদ হাইরুল la daan yàbb yonent bi ba yonent bi joxe ordre ne nañ ko rey waaye keroog bi mu ñëwee kaalawu jàkkaarloog yonent bi di ko tagg ci baanat soad yonent yàlla Muhammad dafa summi manto bi mu solal xëpp ko kaaw kon ku solalati mbubb wala nga wodd ko waxuma ko nag ngir sàkk ko waaye damay wax rek ku ko def jàppal ni def nga sunna bu dee lu yonent bi def sunna la kon ku teral ku koy tàgg rek def nga sunna kon nak yalla la yalla sang ëllëg yomal qiyam ci bés bi nga xamni jangay jàngaay jafe na trop waaw lii laa doon bañ ndax géwél yi dañu mën topando wa fi ne léegi nga gis keneen jox te loolu lay bañ Rasulullah mii ci tëdd fii du maa su jaam yan naan doomi amina cim gën laa gis nga du ma ko ñëwee yaa ma saa jooy sa xol yaa ngi jooy lañ fay def ak di xutba jaam yi waaye yeneen ci bi dam na waxtaan ba mu yàgg mu ne ana xasaan mu ne ko maa ngi mu ne ko kaay yéegal ci kaw sànnil ay xeer yéefar yi ngir ni ñu may xase te nga tagg maa ba ñëpp dégg ko moo tax dégg xasaan da daan tagg sa maam Muhammad

bind bu mag gi yàlla def ci sa Muhammad mënoo xool jëmmam gis ci benn gak gàkk mënoo xool jëmmam gis ci ben ñaaw ñaaw bind bu mag la ko yalla bind mom rasulullah waya neena lola li muy baax baax li nga ko dakal moy sidi ko ji Muhammad sidi ko ji Seydina Muhammad xuliqta mubarraan min kulli aybin anta kama tashaa ana ku bëgg sayyiduna Muhammad Mbaye Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm li mu doon tagg yonent bi ci kaw suuf di ko jaarale ci waxi mag ñu baax ni ah allahumma salli In the वरी वेरी وأهل النار